sëriñ ñaan jóob sëriñ ñaan jóob mi ngi feeñ jamono ci atum 1869 ci dëkk bu tudd warak jóob warak jóob bii nag mi ngi ci suuf si di njàmbur ci région de Louga sëriñ ñaan jóob bi feeñee jamono ci atum 1869 ci dëkk boobu di warak jóob nekk itam ci suuf si di njàmbur ci région de Louga di doomu sëriñ Moustapha Jóob ak ku ñuy wax soxna Roqaya ñan moom sëriñ ñaan jóob nag am na ñoom mbokkal soxna Roqaya ñan mi ñu ràññee ci ku ñuy wax Cheikh Ibrahima Jóob ibnu soxna Roqaya Ñang ibnu sëriñ Moustapha Jóob ak ku ñuy wax sëriñ Madoune Diop ibnu soxna Roqee Ñang ibnu sëriñ Moustapha Diop ak seen jigéen ba ku ñuy wax soxna Faamar Diop bintu soxna Roqee Ñang bintu sëriñ Moustapha ak moom sëriñ ñaan Diop ibnu soxna Roqee Ñang ibnu sëriñ Moustapha Diop kon sëriñ ñaan Diop ñett la bokkal waajur wu jigéen ak moom muy ñeent muy ñaar ñu góor ak kenn ku jigéen bi matee dal alxuraanul karim moom sëriñ ñaan Diop waajuram sëriñ Moustapha Diop ku ñuy wax sëriñ gallaay Nguri Sëy la ko jébbaloon moo ko dalal alxuraanul karim moo ko jàngal mokkal alxuraanul karim ba sëriñ ñaan jóob bind lii di kaamil bi ginnaaw bi nag la ko jébbal ku ñuy wax sëriñ mammoor jóob masar sëriñ mammoor jóob masar mii nag moo meññ cheikh ibrahima jóob al mashari moo ko jàngal itam lii di xam-xam kon ci ñaar ñii la sëriñ ñaan jóob jaar ci wàllu njàng ak xam-xam ba géeju ci lool mu del si waat fi cosaanoo di war ak jóob nekk nag ci loxoy waajuram sëriñ mustapha jóob tàmbalee jàng ak di jàngale ndax lool rek la xam ndax doomu soxna la moom ñaan jóob leen jàngal ci dëkk boo mu cosaanoo di war ak jóob waaye nag mu teel a nekk na ku ràññeeku ku suñ boroom nar a dimbali ku suñ boroom nar a teg loxo wala ku suñ boroom nar a def kilifteef ku baax ci sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim feeñ woon na ko tàmbalee nag di ko liggéeyloo mu tàmbalee nag di tudd ku baax ki sëriñ tubaa Seexul Xaddim te ñoom ñaar mu musuñoo gisee ci zaayir ci dëkk boobu mu nekkoon di war ak jóob ba tax na sëriñ ñaan jóob sax daana dem ci àll bi di defar ay mbaar su ko nit ñi ngay defar lan la booba ñoom ñaar gisee guñ ci zaayir booba fekk na ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim taxawal na nag lii di yoonu murit ba jóge mbàkke kajoor ba sanc nag dëkk bii di daaru salaam ak tuubaa bi seexul xaddiim nag demee ci dëkk bii di mbàkke baari jolof foofu nag la sëriñ ñaan jóob fekk ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim jaayanteeg moom sëriñ ñaan jóob ci atum 1895 la jaayanteeg seexul xaddiim ci dëkk bii di mbàkke baari jolof ginnaaw bu mu jaayanteeg ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ci dëkk boobu di mbàkke baari jolof booba ku baax ki sëriñ tubaa xaddim nag demagul ci géej gi des na mbàkke baari jolof googu ab diir ginnaaw bi nag la ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ñaanal mu delluwaat nag ci dëkkub cosaanam boobu mu feeñi woon jamono di war ak jóg nekk nag ci suuf si di njàmbur ci région de Louga sëriñ tubaa seexul xaddim dem ci at moomu ci géej gi ci atum 1895 ci fukki fan yi ci mois d'août ci atum 1895 mbooloo mi tàmbalee nag wuy si sëriñ ñaan jóob ci dëkk boobu mu nekk di war ak jóob ba tàmbalee bari lool waajuroom wa sëriñ Moustapha Jóob yebal sëriñ ñaan jóob Diop ci ku ñuy wax Baye Taxam di ku ñuy wax Serigne Modou Diop nekk ci dëkk bu tudd Ndéqi fala Serigne Ñaan Diop nekk nag ba ci atum 1902 mooy bikk ki baax ki Serigne Touba Seexul Xadim ñibbisee ci géej gi Serigne Ñaan Diop def na comme ni ko mag ñépp defee ñëw ziyaare si ku baax ki Serigne Touba Seexul Xadim 1903 tubaa Touba Seexul Xadim amaat fi takk-takk ak mbaaxaan tubaab bi duggaat yi ñu yóbbuwaat ku baax ki Serigne Touba Seexul Xadim ci réew mii di gànnaar gànnaar googu Serigne Ñaan Diop dem na fa fekki ku baax ki Serigne Touba Seexul Xadim ko bi muy dem gànnaar mi ngi àndoon nag ku ñuy wax sëriñ baara géy di nijaayam ginnaaw gànnaar ca yéen jolof ca yéen jolof googu itam sëriñ ñaan jóob daana fa dem di seeti ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ca yéen jolof njaareem njaareem googu itam kasaalika sëriñ ñaan jóob daana fa dem di ziyaare ji ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim mu nekk nag ci diggante dëkk bi mu cosaanoo di war ak jóob ak dëkk bii ko waajuram dëloon di sëriñ mustapha jóob ca bàyyi taxam ba di sëriñ muudu jóob di dëkk bu tudd ndéqi tàmbalee liggéey nag di yit ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ndax kat jort na ne xaadim rasuul moo ko ko jox moom sëriñ ñaan jóob mu nekk nag ku ràññee ko moom sëriñ ñaan jóob ginnaaw bu mu nekkee nag ci dëkk yooyu di liggéey di yit ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ba am na benn bis nag mu nekk nag ci dëkk boobu mu nekkoon di liggéey di ndéqi mu jël ay yar di ko dóor boppam ba tax na nit ñi fekkoon ko fa di ko laaj sëriñ ñaan jóob lan moo waral lii ngay def mu ne leen ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim mi ma jox sama bopp de laa bëgg addiye yu ko jox te awma ko te xam naa ne fu ma jaar jox ko ay addiya yëfi jàmbur jox ko ko te su ma jëlee yëfi jàmbur jox ko ko su boobaa buñ ma jàppee danañu ma dóor moo tax nag ma teel a bëgg ñemeel sama bopp ay dóor ba bu boobaa buñ ma dee dóor duma ko yëg boobu pas-pas itam amoon na ko ngir yit ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ay addiya loolu itam taxoon na sëriñ ñaan jóob suñu borom defaloon na ko barke ba tax na ñàkkul woon lu bari gëm-gëm daal am na solo addiya yooyu mu bëggoon di yit ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ba taxoon ko muy dóor boppam ngir bu amul addiya mën a jël yëfi jàmbur yit ko ku baax ki tubaa seexul xaddim loola itam taxoon na saa bu masaa yit ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim addiya sëriñ tubaa seexul xaddim daanu ko ñaanal gërëm ko sant ko ba am na bis sax sëriñ ñaan jóob wax ak njabootam di leen xamal ne de am na lu tollu fukki doomu aadama ak ñaar yu fa yéenee jaar fii ngir dem ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di ko yit ay addiya waaye gan ñooñu dama bëgg na ngeen teel leen na fagaru ci wàllu ngan ndax fii la ñuy jaar doog a egg ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim jaare woon ngir dem ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim te bi ñuy ñëw tàgguwuñ sëriñ ñaan jóob góor yàlla yooyu sëriñ ñaan jóob tuddoon ne danañ fa jaar ngir dem ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim yóbbay àddiya ñu mën caa ràññee ñuy wax sëriñ basiiru gay ak ku ñuy wax sëriñ moor gay mbooloo moom ginnaaw buñ yendolee sëriñ ñaan jóob ba ngoon ñu tàggutoo fa nag ngir dem ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim sëriñ ñaan jóob yëkkati woon na juróomi téeméer ci jamono jooju jox ndaw yooyu ngir ñu jox ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ngir mu nekk ay àddiya ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ñu xamal ko ne taalibeem bu xeebu ba moo ko jox yi addiya sëriñ tubaa seexul xaddim ginnaaw bu ndaw yi egsee ba jox ko addiya di ko wax ne sa taalibe bu xeebu ba di sëriñ ñaan jóob moo la jox addiya yi seexul xaddim doon na leen wax ne xeebu googu ñaan jóob di wax ci boppam ak yëkkatiku la ba faw ak yeneen ak yeneeni kàddu yu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim tegoon ca wax ja ba tey am na benn bis sëriñ ñaan jóob doon indil ay addiya ku baax ki tubaa seexul xaddim laaj ba xam sëriñ ñaan jóob egsi na waaw wala déet ku ñuy wax sëriñ moodu xari la ko doon laaj sëriñ moodu xari di xamal ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di ko wax ne ñaan jóob de egseegul ndax sëriñ ñaan jóob ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ñaan jóob la ko daa wooye ndax sëriñ ñaan jóob maamu waajuram lañ ko tudde ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di xamal sëriñ moodu xari di ko wax ni ñaan jóob de léegi mu egsi ab diir bu néew lañ ko teg sëriñ ñaan jóob nuyoo indil nag sëriñ tubaa seexul xaddim addiye yu takkoo takku ñu ràññee ci addiye ya ñaari bari goy sànqal ak juróomi bërigo yi cerey baraay ak fukki bërigo yi gerte ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim mi ngi doon laaj sëriñ ñaan jóob di ko wax ne ñaan jóob foo fàggoo lii sëriñ ñaan jóob di ko wax ne fag ma dëloon ma toog fa di dëkk ba nga ma gorloo woon di kër sëriñ ñaan jóob muy fii ci tuubaa bu leen fàtte ne kër sëriñ ñaan jóob ab dëkk la bu sëriñ ñaan jóob gor ci ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim moo tax mu ne ko fag ma dëloon ma toog fa di kër ñaan jóob sëriñ dara ndax lépp lu ma fa am yaay boroom sëriñ tuubaa seexul xaddiim di wax sëriñ ñaan jóob di ko wax ne foofu ma la dël de di kër sëriñ ñaan jóob toog fa ku la fa fekk nga faj aajoom ci jataay boobu la ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim wax sëriñ ñaan jóob ne ko bis na nga tey defal naa la képp koo xam ne nii gël na la su jaree eggale ci suñ boroom nga eggale ko ci suñ boroom ci lu jërul ngay laaj ndigal ci at yooyu yooyu nag la sëriñ ñaan jóob ngërëm ci ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim mu toog nag ci dëkk boobu ko seexul xaddiim dël na itam ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim dama bëgg na nga defal ma ma nekk ab lantinoor ci dëkk bi lépp loo xam ni dafay dugg te waru fee dugg ma segg ko loola itam seexul xaddim nanguloon na ko ko ba tey ci liggéeyu sëriñ ñaan jóob tol na temps yoo xam ne nii ku ñuy denc luñ la sànge sax pour ñu am ko lu jafe la moom sàkk woon na ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim mu warlonte képp ku faatu mu wutal la càngaay ba tey ci liggéeyu sëriñ guddoon na lool ba tax na itam sëriñ tubaa seexul xaddiim bàyyi woon na ko xel ndax am na benn bés mu boole kook cheikh moodu moustapha mbàkke ab tukki bu yàgg ginnaaw cheikh moodu moustapha mbàkke itam boole woon na kook sëriñ omar mbàkke gelongal ab tukki itam bu yàgg ginnaaw bi nag la ko booleeg cheikh mamadou lamin baara mbàkke itam ab tukki ngir jikko ju sëriñ ñaan jóob yore woon ak xel ma ginnaaw cheikh moodu moustapha mbàkke sëriñ omar mbàkke gelongal ak cheikh mamadou lamin baara mbàkke kenn ku ne itam santoon nga sëriñ ñaan jóob ci ànd googu nga àndoon boobu bi cheikh mamadou lamine baara mbàkke àndeek sëriñ ñaan jóob nag ca tukki ba bi mu ñibbisee nag la sàkku ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim di ko wax ne su ma sañoon daal nga boole mag sëriñ ñaan jóob mii ndax xam naa ne ko am pastéef la ci la nag sëriñ tubaa seexul xaddiim jële sëriñ ñaan jóob jébbal ko cheikh mamadou lamine baara mbàkke kon lii moo indi sëriñ ñaan jóob ci loxoy moo mamadou lamine baara mbàkke waaye sëriñ tubaa seexul xaddiim la tarbiyo ba sëriñ tubaa seexul xaddiim jox ko ngërëm sëriñ tubaa seexul xaddiim moo ko gorloo kóllëre gum amoon cheikh mamadou lamine baara mbàkke ci tukki boobu ñu àndoon ci la cheikh mamadou lamine baara mbàkke xam ne su àndeek sëriñ ñaan jóob lim bëgg daa ko am wala lim bëgg dana ko am lii moo indi sëriñ ñaan jóob ci loxo yi loxoy cheikh mamadou lamine baara mbàkke mu nekk nag ku cheikh mamadou lamine baara mbàkke bàyyi xel nekk itam ku cheikh du lamine mbàkke sóoraale ba tax na cheikh mamadou lamine baara mbàkke def loo na lu bare bare bare bari sëriñ ñaan jóob ndax quartier bii cheikh mamadou lamine baara mbàkke dëkke di tuubaa guy bind sëriñ ñaan jóob moo ginnaaw bu cheikh mamadul moustapha mbàkke joxe ndigal cheikh mamadul lamin baara mbàkke ngir mu dëkke foofu féete fa mu mamadul lamin baara mbàkke moo sàkk woon ci sëriñ ñaan jóob di ko wax ne dama bëgg nga goral ma guy bind waaye na gor bi lu mu yàgg-yàgg bu mu ëpp weer sëriñ ñaan jóob ci benn fan la gor lii di guy mbind cheikh mamadul lamin baara mbàkke dëkke fa ndax kët guy mbind kër sëriñ ñaan jóob moo ko mag te booba fekkoon na kër sëriñ jóob la sëriñ ñaan nekk mu dem fam néeg ya fa nekkoon ak ay néegi taalibeem ñëw nag ci guy mbind ngir cheikh mamadou lamine baara mbàkke man faa féete ginnaaw bu cheikh du lamine baara mbàkke ñëwee nag di seet si gor bi lañu ñëw fekk nag lépp sot sotti keroog yéemu na lool ci sëriñ ñaan Diop sant ko gërëm ko wax ko itim lu am solo bisub keroog ci gor boobu itim sëriñ ñaan Diop rayoon na ca ñetti nag ak lu takkoo takku ci ay xar pastéef boobu mu amoon ci gorub guy mbind boobu yéemoon na nag kii di cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke ca jataay boobu cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke jiitaloo na julli sëriñ ñaan Diop sëriñ ñaan Diop gàntal cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke di ko wax ni dafa am lu may mébét ci yow kon kaay jiite julli gi sëriñ ñaan Diop na jiite julli wootee julli googu nag sëriñ Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke sàkk woon na ci sëriñ ñaan jóob mu yëkkati ñaari loxoom ci kaw ginnaaw bu ko sëriñ ñaan jóob defee nag Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke doon na ko xamal ne boole naa la ca góor yàlla ya ca jataay boobu nag sëriñ ñaan jóob daanu na fa jooy fa ba fam ñaari doomam yu jigéen jébbal ko Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke muy soxna Faati Jóob ak soxna Awa Jóob soxna Faati Jóob moom nag lañ jébbaloon sëriñ Moodu Baara Mbàkke mu am ci sëriñ Xaadim Moodu Baara Aziz Baara mu am ci sëriñ Abdul Karim Mbàkke moom sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke sëriñ Abdul Karim Mbàkke Baari moomu sax moo toog toogaayu sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke ca jotaay boobu itam ba tey la Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke wax sëriñ ñaan Jóob di ko xamal ne lal ba Rasulullaay jébbaloon ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddim sëriñ Tubaa Seexul Xaddim man mii nag la ko rafaatale woon yow itam yow laa ko rafaatale ngërëm loolu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke gërëmoon sëriñ ñaan Jóob tax na itam Lamine Baara Mbàkke di benn ba tax na itam néew na lool nga mën a dugg ci génn kër ci njabootu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke te doo fa fekk sëtub Sëriñ Ñaan Jóob loola itam tax na sëtu Cheikh du Lamine Baara Mbàkke yu baree baree bare itam njabootu Sëriñ Ñaan Jóob moo leen meññi ñu man cee ràññe Sëriñ Xaadim du Baara doomu Sëriñ Ñaan Jóob bi tudd Soxna Faati Jóob moo ko meññi Sëriñ Abdou Karim Mbàkke Baari di doomu Sëriñ Abdul Aziz Baara doomu Sëriñ Ñaan bi ñuy wax Soxna Awa Jóob moo ko meññi Sëriñ Abdul Aziz Abdul doomu sëriñ ñaan jóob bi ñuy wax soxna lootu jóob moo ko meññ ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci sëti cheikh mamadou lamine baara mbàkke yi njabootu cheikh mamadou lamine baara mbàkke ak njabootu sëriñ ñaan jóob benn lañ ndax sëriñ ñaan jóob nekkoon na jëwriñu cheikh mamadou lamine baara mbàkke ba tey kóllëre gu cheikh mu lamine baara mbàkke amoon ak sëriñ ñaan jóob doomam ji di sëriñ cheikh sidil muxtaar mbàkke di xalifa général des mourides cheikh mamadou lamine baara mbàkke moo ko jébbaloon sëriñ ñaan jóob ngir mu jàngal ko keroog ba mu ko koy jébbal mi koy wax ne sëriñ Mbàkke laa ko tuddee waaye Serigne Cheikh Awa Balla Mbàkke bëgg na turandoom gi bëgg goo xam ne nii su ma ko fa bàyyee mën naa am li ma soxla ci moom du ko fa am ndax mbëggeel gu Serigne Cheikh Awa Balla Mbàkke bëgg turandoom wi loolu itam moom moo tax ma jox la ko ngeen nga jàngal ko Serigne Cheikh Sidine Mokhtar Mbàkke mii toog xalifa général des Mourides Serigne Ñaan Jóob moo ko jàngal kàddu yii ma leen wax nag Serigne Cheikh Sidine Mokhtar Mbàkke nettali na ko ñu bare a bari na Serigne Ñaan ko yóbbu woon ci ay la taawu cheikh mamadou lamine baara mbàkke ba di sëriñ moodu baara mbàkke fobaat sëriñ cheikh mati lay jébbalaat ko sëriñ cheikh awa balla mbàkke ba tey ci liggéeyub sëriñ ñaan jóob mën nañ cee ràññee bi ñuy gas bi bokk na itim ci ñi cheikh mamadou lamine baara mbàkke jébbaloon cheikh mamadou moustapha mbàkke biñ taxawalee jumaay tubaa ji itim bokk na itim ci ñi cheikh mamadou lamine baara mbàkke jébbaloon cheikh mamadou moustapha mbàkke ba tax na tuuj giñ defoon ci jumaa ji ngir nit ñi di ci taxaw di soññee ci liggéey bi tuuj googu itim sëriñ ñaan jóob mooy ki ko fi defoon ba tey sëriñ ñaan jóob warlante woon nag cheikh mamadul moustapha mbàkke cheikh mamadul lamin baara mbàkke ak cheikh mamadul faadal mbàkke gudd gu jot mu yit leen ay reer mu cheikh mamadul moustapha mbàkke tundoo di la ko daa yit cheikh mamadul faadal mbàkke ci këram gi nekk tuubaa la ko ko daa yit mu mamadul lamin baara mbàkke ci guy mbind la ko ko daa yit ku ñuy wax cheikh géy moo daa yóbbu reer yooyu cheikh géy nag ba nëga ni mi ngi fi cheikh géy mi ngi ci dëkk bu tudd gerle ba tey sëriñ ñaan jóob sàkk woon na ku baax ki sëriñ tubaa seexul li may mu ko siggil ndigaale loola itam taxoon na ci diirub dundam kenn musu koo jaale soxnaam doon na sàkku itam ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ku dégg aw turam suñ boroom defal ko xéewal ndax lépp rek yërmaane jum amoon ci jaam ñi rawatina ñi ko sëriñ tubaa seexul xadim boole loon dañ tudde leen ay taalibe sëriñ ñaan jóob am na benn bis nag mu toog ci ak garab nekk fa ak ay taalibeem am nag ay picc yu nekk ca garab ga di sab-sab yu metti metti sëriñ ñaan Diop doon laaj taalibe yi est xam nañ lan la picc yi coow taalibe yi ne déedéet mu leen di wax na ci biir tàgg gi picc yi da cee am menn tàgg moo xam ne ni ab pusa da caa nekk picc yi ne kenn ku ne nag yaa ngi wax sa moroom ne liy jamee ci tàgg mi yow yaa ko fi indi lool moo tax ñuy sab seen sab yu metti yi ma ngay wax nag ne na am kenn ku dem xool tàgg ma ñu demee xool tàgg ma nag ab pusa lañ fa fekk mu ne leen lii moo taxoon nag picc yi kenn ku ne di ko jiñ sa moroom di wax ne li fiy jamee yaa fi indi sëriñ ñaan Diop ñu Serigne Ñaan Jóob romb ay armeel ca biir armeele nag am na jigéen ju ñu fa doon fitnaal ci ñañ fa denc mu jàdd ca bàmmeel ba sàkku nag ci soxna si lan moo tax nag ñu koy dóor dóor yu metti yi soxna sa di ko xamal ne dafa demoon Kaolack mooy fa suñu boroom Serigne Ñaan Jóob laajoon na ko kan mooy boroom këram soxna si nag waxoon na ko kan mooy boroom këram Serigne Ñaan Jóob demoon na ba ci boroom këru soxna soosu nag di ko wax ne sa soxna sa tinu naa ko suñu boroom ba mu baal ko waaye yow nag dellul ca barabam te ñaanal ko ak yeneen ak yeneen yu Serigne bëgg a lim kii sëriñ ñaan jóob daa juum ndax cheikh mamadou lamine baara mbàkke moo nekkoon boole naa la ci góor yàlla ya ba tey ci jëfi sëriñ ñaan jóob teen bii nekk ci buntu armeer yi sëriñ ñaan jóob mooy ki ko fi def moo tax soo demee ci téere bi sëriñ jiili jóob bind sëriñ jiili jóob nag taalibeb sëriñ cheikh moom cheikh abdou xaadir mbàkke la soppe la itam ci kër sëriñ ñaan jóob bind na ab téere jagleel ko sëriñ ñaan jóob téere ba nag mi ngi toll ci téeméeri way ak juróom-ñaar fukk ak mu Diop ci dunduk Serigne Niane Diop moo xam fi mu jaar ci wàllu njàng fi jaar ci wàllu xam-xam ak nim def ba ànd ak ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim ak naka la ko Seexul Xaddiim booleeg mu Mamadou Lamine Baara Mbàkke dunduk Serigne ñaan Diop daal la tënk ca téere ba mu tollu ci téeméeri way ak juróom ñaar fukk ak juróom ñu teew lu lenn luñ leen jukkeel ci téere boobu sëriñ Jili Diop di soppeeb sëriñ ñaan jóob def ci jàmbaar jooju di Serigne Niane Diop ilahi waxwal xalafiru sunoob lay tàmbalee na jëf yu sàq ngërëm ci yàlla ak yeneen ba seex bamba yi da koo gërëm gërëm lu wér sa ñaanu fees dëlla ngërëm te làq cër dee tax ku nekk war a gëstuy mbiram ngir mën a rëcc ci moom bu làq ngërëmam su ngeen ma digloo tey ma taarixal leen dundam gu barkee ga ngir mu soññi leen ñi tàmbalee ci fam ganasee adduna ba nam ko dëddoo naa ca wax kii yàlla na boo xam njëriñam ak ngeneelam na diglooy wi naa wax lu fees bëtum ma njëkk laa wax fam ganasee àdduna buy dëkk bi ñu naa war ak moom sedd na dëkk bu am cosaan la ngi ba njaam di ju fa dugg raw sa ñaana fa dem te yàlla fu mu seet wàccee fa xaritam am na solo ngir yàlla day boroom xikam at ma mu feeñ jamono mooy mille huit cent trente-neuf leeral na booba suuf saa Cheikh Moustapha la way juram wa tuddoon muy mag ma woon ndax ab moo dir soxna ko tànnal way juram mu ñëpp ñoŋ ñu xëy jébbal ko sëriñ Galaay Nguri Kile jàngal ko kuñ naa sëñ Mamoor tam di way juru Muxtaar mi fi nekkal Bamba yàlla ko woyofal yanam ba xam na sëriñ ñaan ngir newoon na ci loxoom moo yenn moom la yoroon naw nañ ko moom sëriñ ñaan jëfal na say xibaar jëf juré seen baara it gërëm ko firnde jaa ngi tey moo tax mën naa say si ñaan borom ngërëm ci kaw ngërëm amul moroom làq na ndam baatin la fese woon te daana xar baax te xamlu ak seegul di xotti ay baax toogoon na bis ci a garab mook doole bam yàgg rek ñuy dégg coowal picc ya sëriñ ñaan ne ndax xam ngeen lu picc yi di wax ñu naa ko deet mu naa dañuy xuloo de ndax apusa lañu fekk ci seen biir tàgg ku nekk di wax moroom ja naa tooñ nga ma ngir puso bi yaa ko fi indi jam na ma daal dina leen na kenn dem ya tàgg ma ba ko ba far dooni ci ram loolu mooy téere bi sëriñ Jiili Jóob jagleel sëriñ ñaan Jóob sëriñ Jiili Jóob nag soppee ci kër sëriñ ñaan Jóob téere bi nag mi ngi toll ci téeméeri way ak juróom-ñaar fukk ak juróom am na beneen marché nag bu sëtam bii di Seex Ibrahima Jóob def ci maamam jooju di sëriñ ñaan Jóob mu toll ci ñaar fukki way ak ñeent sëriñ ñaan Jóob nag gor na ay dëkk dëkk wala sanc na itam lii di ay dëkk ñu ràññee ci dëkk bu tudd daaru jóob mi ngi wetu bay laa goog sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma doomam ji mu tudde xaadim rasuul la fa dëloon muy sëriñ jóob ñaan sanc na dëkk bu tudd joxaar mi ngi ci wetu dëkk bii di mbuur sanc na dëkk bu tudd kub-kub mi ngi ci diggante kolobaan ak mbar doomam ju ñuy wax sëriñ na jóob la fa dëloon ak lenn nag ci ay taalibeem ku ñuy wax sëriñ moor daara sëriñ maxtaar ndumbe ak ku ñuy wax sëriñ aliyun faal sëriñ ma yi ma yoroon daaray alxuraan ja sanc na dëkk bu tudd daaru nahim wande ku ñuy wax maam moo moodu roqaya la fa dëloon sanc na itam dëkk bu tudd fetto mi ngi ci wetu daaru raxmaanu sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi ak nag dëkk bii nag mu gor ci tuubaa di kër sëriñ ñaan jóob mu nekk nag ci dëkk yi nag di liggéey di it xaadim rasuul ginnaaw xaadim rasuul nag mu fab léppam jébbal cheikh mamadou lamine baara mbàkke ndax ñoom ñaar kat xaadim rasuul moo leen boole ci dëkk bu sell rasul jàppe ko itam xaadim rasul ginnaaw cheikh mamadou lamine baara mbàkke itam mu fab léppam jébbal njabootu cheikh mamadou lamine baara mbàkke muy sëriñ muudu alxafis mbàkke mi njëkk a wuutu cheikh mamadou lamine baara mbàkke ci teewaayu nag xalifab sëriñ tuuba seexul xaadim bi fi nekkoon di cheikh mamadul moustapha mbàkke ibnu xaadim rasul moom sëriñ ñaan jóob ba nim génne àdduna ci atum 1941 mu nekk na ku wóolëranteeg njabootu xaadim rasul gi ndax cheikh mamadul moustapha mbàkke sëriñ tuuba tukki ba tax na itam kii di sëriñ ñaan jóob tudde na ko doom ndax sëriñ mustapha jóob mi ngi fi te cheikh mamadul mustapha mbàkke xaadim rasul la ko tudde cheikh mohamadul faadal mbàkke wóol la réew sëriñ ñaan jóob la woon ba sëriñ ñaan jóob itam tudde na doom cheikh mamadul faadal mbàkke cheikh mohamadul lamin baara mbàkke sëriñ tubaa cheikhul xadim moo leen boole woon jébbaloon ko cheikh mamadul lamin baara mbàkke ba tax na itam léppam cheikh mamadul lamin baara mbàkke la mook cheikh mamadul lamin baara mbàkke itam jaar nañ fu bare bare bare bari ba moo nekkoon jëwriñu kër gi gi ba tax na itam tudde na doom cheikh mamadou lamine baara mbàkke sëriñ moodu sànn moom sëriñ ñaan jóob mi ngi fi woon nekkoon na sax ñaareelu xalifa sëriñ ñaan jóob cheikh mamadou lamine baara mbàkke la ko tuddee maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru xaritam la woon wóllëreem la woon ba tudde na ko doom ndax maam ceerno jóob mi ngi fi te maam ceerno ibrahima faati mbàkke la ko tudde sëriñ cheikh anta mbàkke borom dërëm ak ngërëm tudde na ko doom ndax doomam ji féete ci dëkk bi di kub kub di sëriñ cheikh gaawaan jóob maam cheikh anta mbàkke ibrahima fall lamp baabul muridina xaritam la woon soppeem la woon ba tax na bi maam cheikh ibrahima fall lamp baabul muridina génnee bokk na itam ci ñi ko gungee ba ca kërug dëgg ga sëriñ ñaan jóob itam bokk na itam ñi ko mujjee laal bi ñuy denc maam cheikh ibrahima fall ci ñi mujjee laal maam cheikh ibrahima ci la bokk ndax cheikh ibrahima moo ko sàkku woon ci sëriñ ñaan jóob kóllëre googu itam ñu tax na itam sëriñ ñaan jóob tudde na doom Fall Diop mi ngi fi moo nekk sax ñetteelu xalifa Serigne Niane Diop te maam Cheikh Ibrahima Fall la ko tudde ndax ak kóllëre gu ñu séqoon ak lu bare bare bari lu doxoon seen diggante sëñ Abdoulahi Mbàkke boroom dër bi ibnu Xaadim Rasul kii di Serigne Niane Diop itam tudde na ko doom ndax sëñ Abdoulahi Diop mi ngi fi te Serigne Niane Diop sëñ Abdoulahi Mbàkke la ko tudde sëñ Abdoulahi Mbàkke mi itam moo ko taxawu ko jullee moo ko jébbal boroom itam ci armeer yi mag yi ci ndigalul magam ji Seex Mamadu Mustafa Mbàkke Cheikh Ibrahima Diop al Masari Diop la woon ndax waajuru Cheikh Ibrahima Diop almasariyu moo jàngal xam-xam sëriñ ñaan Diop njabootu xaadim rasul gu jigéen gi soxna Faatija Mbàkke bintu sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke boole woon leen ñoom ñaar ñu nekk ak wóllëre ba soxna Faatija Mbàkke nekkoon na ci kër sëriñ ñaan Diop googu ab diir bu xaw a yàgg ci ndigalul Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke ba tax na itam ci njabootu sëriñ ñaan Diop gi soxna faati yi bari na fa lool sëriñ Muudu Sawba bokkoon ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim mook sëriñ ñaan jóob amoon nañ ak kóllëre ndax ñoom ñaar bokkandoo woon nañ nekk ci dëkk bu sell bi di tuubaa tax naa amoon nañ ak ak kóllëre sëriñ daaru asan njaay ñoom ñaar tim amonte woon nañ ak kóllëre ndax ëttub xaadim rasuul bi ñu bokkoon sëriñ mbàkke bu sa bu gede wala réew sëriñ ñaan jóob la woon sëriñ amsatu jaxate bokkoon tim ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim wala réew sëriñ ñaan jóob la woon sëriñ suley jaañ bokkoon ci jàmbaar yi toppoon ci ginnaaw seex mamudul mustapha mbàkke wala réew sëriñ ñaan jóob la woon xam naa daal ku bëgg lim ku sëriñ ñaan jóob amante woon ak kóllëre daa juum mën nañu wax ne daal képp kum bokkaloon ëttub xaadim rasuul bi bi soppeem nga woon moom itam mu soppoon la ndax xaadim rasuul noonu la ko bëggee woon te mag ñi itam noonu lañ ko daa doxale moo tax mag ñi toppoon xaadim rasuul koo ci tudd rek wala réew moroom ja la woon ndax li ñu gisoon xaadim rasuul kese la doomu sëriñ Moustapha Diop ba ak soxna roqee ñang ja di sëriñ ñaan Diop mi ngi génn àdduna bisub ajjuma fanweeri fan ciw maamu koor ci atum 1360 ci gàddaay gi ajjuma fanweeri fan ciw maamu koor ci atum ci gàddaay gi dëppoog vendredi 25 juillet 19 1941 vendredi 25 juillet 1941 ci dëkk boobu mu goroon di kër sëriñ ñaan Diop ci ndigalul ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim te féete woon fa ci dëkk boobu nag la ko feebar tërale woon ci dëkk boobu itam la génnee àdduna ci fanweeri fan ci maamu koor ci teewaayu ki toogoon toogaayu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke di sëriñ Muudu Alxafis Mbacke mi nekkoon xalifa Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke ci kilifteefu xalifa général des Mourides bi fi nekkoon di Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke mi bokk ak Cheikh Mamadou Lamine Baara mbàkke soxna aminata loo ak xaadim rasuul moo jox ndigal sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi ngir di ko wax mu dem taxawu jàmbaari cheikh mamadou lamine baara mbàkke ja di sëriñ ñaan jóob kon cheikh abdullahi mbàkke boroom dër bi moo taxawu sëriñ ñaan jóob moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ci wetu kam yaakaaroon di cheikh mamadou lamine baara mbàkke ci armeer yu mag yi sëriñ ñaan jóob ay xalifaam nag nii la tëdde ci atu 1941 ba atu 1985 ka mu tudde xaadim rasuul di sëriñ jóob ñaan jóob moo ko wuutu nag xalifaam bu njëkk ñaareelu xalifa sëriñ ñaan jóob mooy kam tuddee cheikh du lamine baara mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xadim ñu koy wax sëriñ muudu sànn jóob moo ko wuutu ci atum 1985 ba 2000 nekk nag ñaareelu xalifa sëriñ ñaan jóob ñetteelu xalifa sëriñ ñaan jóob mooy kam faye maam cheikh ibrahima fall lamp baabul muridina te nekkoon ab xaritam ak wóllëreem muy ku ñuy wax sëriñ cheikh fall jóob moo nekk xalifaam ci atum 2000 ba nëgëni waaye sëriñ cheikh fall jóob mii ku ñuy wax sëriñ mustapha jóob ibnu sëriñ ñaan jóob moo nekk jëwriñu kër ga yorandi nag liggéeyub sëriñ ñaan jóob bi ñuy ñaanal sëriñ Cheikh Fall Diop ak jëwriñam ji di sëriñ Moustapha Diop ak mbooleem ñu séqal sëriñ ñaan jóob moo xam doom sët ak jarbaat suñ borom taxawu leen te sàmm leen te bàyyi leen ak barkeb sëriñ ñaan Diop bi sëriñ ñaan Diop nag am na bis buñ koy fàttaliku muy luñ tudde ak màggal fanweeri fan ci maamu koor di bis bi mu génnoon àdduna ci dëkk boobu mu goroon di kër sëriñ ñaan Diop kër sëriñ ñaan Diop googu sëriñ Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke mi toog toogaayu Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacke sàkk sàkku na itam ci njaboot gi ñu tudde ko daaru salaam kër sëriñ ñaan jóob xalifaam bi ko njëkk wuutu di sëriñ jóob ñaan di kim faye xaadim rasuul moo ko taxawaloon doon ko màggal màggal na ko ba nim fi bàyyi ko mbooleem xalifaam yi ko wuutuwaat ginnaaw bi itam màggal nañ bis boobu muy fanweeri fan ci umaamu koor di bis bi sëriñ ñaan jóob génnee woon àdduna am na beneen bis itam bu ñuy fàttaliku sëriñ ñaan jóob ci dëkk bi sëriñ ñaan jóob goroon di dëkk bu tudd kub kub doomam jum tudde maam cheikh anta mbàkke boroom gaawaan moo koy màggal muy sëriñ gaawaan Diop muy ñaar fukki fan ak juróom ci maamu koor di bis bi sëriñ Touba Seexul Xaddiim boole woon sëriñ ñaan Diop ak cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke sëriñ cheikh Sidil Muxtaar Mbàkke mi toog toogaay cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke moo joxoon ndigal njabootuk sëriñ ñaan Diop di leen wax ne bis boobu nañ koy màggal mu ñaar fukki fan ak juróom ci maamu koor di bis bi xaadim rasuul boole woon seen ñaari waajur ya mu cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke ak sëriñ ñaan Diop ñuy ñaan ci dooley sëriñ ñaan Diop ci barkeb alxuraanul karim ci darajey rasul lii di jafe-jafe réew mi itam yàlla na ko suñ boroom saafara te def sutura ak xéewal ci miléem réew njabootu sëriñ ñaan jóob itam ak nuñ ci mën a ajoo yàlla na leen suñ boroom teg loxo te sàmm leen te aar leen ci darajay alxuraanul karim amin alxuraanul karim amin alxuraanul